lu nak kolera la ko leralal nga gem ko moy su fekkone tank ak masa am mustadagan kon sol aw dalu sang du wara tax nga masaa ko mu dagan la ci njàpp waaw ndax bo solon glof ga ci sa loxo bi ndax gant bobu loxo masaa ko daganut dañ koy raxas ala kulli alim ndax boo soloon ab gaa wala nga sol ab kawaas ba fii ndax loolu dina war a tax boo jàppee ba pare nga maasaa ci kaw loolu déedéet parce que cosaanam daganutoon dañ koy raxas moo tax masaa ba ñoom dañu gëm ne asli ab tànk mooy ne masaa la moo tax boo soloon dallu sang ñu may la nga masaa ko parce que bu fekkoon ne daganuta masaa raxas rek la tànk dagan boo solee dallu sangit du tax mu dagan pour nga massako parce que yeneen cër yi ñuy massang fi yeneen cër yi ñuy raxasang fi te boo ci soloon leneen ngir jublu ci ak noflaay massako dagan lu dul ak lor nag bu lor ñëwee nag nga xam ne ñàkk jàpp sax xaj na ci nga xam ne tiim sax xaj na ci su ko defee yooyu bu boobaa lor googu moom lislaam fa ma nuttura baqin wala aadin fala isma ali la yukallifu llahu nafsan illa wusaa loolu mooy atte ba nga xool exemple bi lay jox rek mooy boole timis ak gee boo demee ci fuqaaw malikiya dañu ko tere atol boole ñaari waxtu yu bokk boole leen julli te amuloo ci benn ngant loolu ñoom dañu ko dàq dañu ko tere daganut boo ko defee def nga lu ñaaw waaye boo demee ci yeneen mazhab yi dañ ne dafa dagan lu tax nga di ko boole parce que cosaan la dafa dagan mooy ñaari waxtu yi ñoo bokk moxtaar ñoo bokk daroor yi te ñaari waxtu yu bokk daroor yi seeni moxtaar duggante nañ te ñaari waxtu yi seeni muxtaar duggante man nga xaar julli leen benn waxtu for exemple yonent bi wax na ci benn hadis ne ubrido fi salati li ñuy wax nag ngeen baal ñu àq maanaam pour wone xam-xam ni mu yaatoo dënn rek lañ leen di jàngal waaye amuñ soxla sax nag ci àtte ya parce que ñun li ñu gëm-gëm nañ ko waaye yow mii di gis keneen di def leneen lu wuteeg li ngay def yow lañ bugg a yee ci àdduna ba boo ko gisee bu mu la jaaxal na la wóor ne yaa ngi sukkandiku ci mazhab waaye moom it daf ko jàng parce que mbir mi noonu la tëddee mu ngi mel ni ki ñëw ci jàkka fekk imaam di xutba mu toog julliwut am na fu mu wéedu ki ñëw ci jàkka fekk imaam toog mu kàbbar di naafila kooku it am na fu mu wéedu parce que lu ci ne borom xam-xam yi kenn ku ci ne am na foo ci féete ki amul àtte mooy ki xaar ba imaam xutba ba àgg ci ñaan gi mu ne day dabaatal la kooku moom amul mazhab bu mu wéedu loolu amul fenn ci fuq fiq amul fenn ci sunna jànguñu ko fenn nit nag yow nga ñëw toog imaam di naafila imaam di euh, xutba rek nga agsi toog imaam xutba ba àgg ci ñaan gi commencé ñaan nit ñi naan amiin rek wala imaam jóg na rek nga de xaaral ma gaaw profité naafila déedéet foofu duñ fa naafila loolu dañ ko war a xàmmi bu baax kon ñaar ñii am nañu wéerukaay yonent bi wax na ci benn hadis ne ubridu fi salaati ubridu bi salaati fa inna siddatal arri min fayhil jahannam na ngeen di seddlu ci julli ndax kat mu ngi bokk ci alaw tikku jahannama muy su fekkee tàngooru mbóoyu am na na ngeen di fiixlu dal ba tàngoor yu wàcc ngeen doog julli ndax kat tàngoor woowu mu ngi bokk ci alaw tikku jahannama maanaam xënj bi jahannama di xënj moo agsi àdduna tàngooru jahannama moo agsi àdduna te yonent bi bëggul nga julli ci waxtu woowu bëggulit logique ba mooy jamono boobu fitna la ju metti ngay jóg di jàpp ak tàngoor wi ni mu méttee waaw naaj waa ngi tàng léeg-léeg sa ndox mi ngay jàppee tàng loolu yonent bi bëggul kenn am jafe-jafe ci jaamu yàllaam te nag waxtu wi yaatu na te it nag foo jullee danga am yool bu toll ni ki julli woon ci temps boobu ngir yaa sukkandiku ci ndigalal yonent bi kon nag xaar ko dara nekku ci su boobaa fuqaaw yi tëral nañ ne boo xaaree ba boori foo afta foo mën nga julli tusbaar julli tàkkusaan soo paree te ñaar yépp dañuy wér kon loolu bu cosaanam daganutoon kon ak mu jëm du dagan parce que cosaanam mooy ñaari waxtu yooyu ñoo bokk waaw ndax kenn gis na benn ngant bu mën a am ci àdduna ba tax ñu boole fajar ak tusbaar mënta nekk soo ko doon defit du wér ilaa yomi diin te ker boo ko bàyyee ci lu dul ngant am nga bàkkaar ndax benn ngant mas naa ñëw maanaam taw bu bari tax ñu ne na ngeen boole tàkkusaan ak timis déedéet parce que mën a wut possible pour nga def ko moo tax ñu tere la ko yi nga xam ne nag dafa wér te dafa dagan ca cosaan ba fi mujjee moo tax ñu ne la bu sa ngànt amee moo tax ñeneen it dañ d'accord ne mën nañ ko boole ci kaw mu neex la rek ñooña seen gis-gis la ci xam-xam kon loolu mooy yaatu dënn ci wàllu àttee xam-xam moo tax ñu ne la laab yàlla moo ko tëral ci alquran yonentu bi yaatalal ñu ko yonentu bi indil ñu àtte yu jiitu loolu soo demee ci biir di nga fekk raxas loxo bi parce que wax dëgg yàlla balaa nga jël ndox di ko dugal sa gémmiñ loxo bi koy tànk war naa set war naa sell moo tax ñu ne la raxasal sa loxo ñetti yoon parce que ñetti yoon yi boo ko ko raxasee dana set bu setutoo nit dana tooy ba àgg fépp luy yëbb dana wàcc luy war a soppi ndox mi bu fekkee duwul diw guy niin foofu ñu bàyyi ci xel loolu lu mat a bàyyi xel la nga diw sa loxo yi mu niin ngay tibb ndox mi muy niin lolou du wér da ngay dem nga génnee ni ni yoy nga japp looloo gëna a parce que li niin li man na am ndox mi du laal deru deru yaram wi du ko toyal te bu ko toyalu rek sa japp li du wér parce que place bi wara toy da fay toy place bi ñu wara massa nak bobu la ci mu toy lu ci toy rek lolo wér yontu bi ne nañuy galax ndiku parce que bo raxasse sa loxo bam set do wax ne sama loxo ye soppi ndox mi boo galax lu ndox mi di saf danga ko xam boo sorax lu ndox mi di xeeñ danga ko xam te ñett yi waxoon naa la ci njëlbéen la ñooy ndox yi nga xam ne ñooy yi soppi ndox te du mën a jàpp bu kulo koola bi boo sottee ci sa ndox ci sa loxo raxas ko ba mu set danga xam ne ndox mi am na koola wala amul koola boo galax danga xam saf na wala safut leneen lu dul ndox boo sorax leneen lu ci xeeñ lu dul xet ak ndox gi da nga xam ne lii noomalut ñett yi nag boo ko seetee ba mu wóor ba nga àgg foofu balaa ngay àgg ci farata yàlla ji def nga yooyu ba xam ne ndox mi wér na mën naa jàpp yonent bi moo ñu indi laaye biir googu muy sunna soo xam ne ci njàpp la dañ koy def far léegi nag nga doog a ñëw sëlmu boobu farata la moo tax ñu jàngal la farataay njàpp yi juróom la moo tax farataay njàpp yi juróom ñaar la mu ngi jéggalu raxas sa xarxanam moo ci jiitu raxas sa ñaari loxo topp ci ba ci sa ñaari cóon ci maasa bopp topp ci raxas ñaari tànk yi bokk ci ba ci ñaari doojoor yi ak ragg booy raxas nga ragg loolu farata la parce que boo raggul ndox mi mën naa bañ a tooyal der bi mën naa jaar ci kawam rek wàcc te du tooy wal fawru ak gaaw gaaw luñ ci jublu mooy bul raxas nekk fa di waxtaan ba beneen cër ba wow te fekk ba ca des raxasoo ko looloo tax ñu ne la nga gaaw waaye waxuñ la nga ñëw rek palam-palam gaaw rek def nii ñu ne one second nga pare njàpp déedéet kon loolu doon nemmeeku palaas yi te da nga war a nemmeeku palaas yépp yëg ne fi nga doon raxas li la tax a jóg tooy na nga def ko ngir jaamu yàlla yii juróom mooy farataay njàpp yi kon boo xasee ba raxas sa loxo mu set nga tànq ndox galaandiku xam nga ndax saf na wala saful nga sorax ndiku xeeñ na wala xeeñul kon ndox mi wér na ne mën ngaa jàpp bu la leeree ne mën ngaa jàpp continuer la tibb ndox maanaam ta tànk ndox ci sa ñaari loxo yi nga raxas sa xar kanam booy raxas xar nag fi kawar gi yem bu dul borom leel fi kawar gi yem foofu ngay tàmbalee raxas yem ci ñaari nopp yi mu yii mu agsi ba ci ron sikkiñ bi nii yi moy xar kanam biñu wara raxas nga bàyyi ko xel bu baax bu ñu wara jël ndox mi def ni jël ndox rek def ni sa ngam yi toyul sa jëbi toyul sa sikkiñ bi yoy yep da fay am ci njàpp yi boko defé danaka def nga lo xamné ne pertement la parce que yaa ngi tooyal li nga wara toyal tooyal kon kat nga bayyi xel fi jëbi yam bu fekke borom leel nga nak da nga am leel sa jëbi ba ci digg bop bi saxul kawar fi ñu xam ne fi la saxukaayi kawar daan baaxoo di yem foofa ngay yemale raxas ba ku ne xam na fi sa jëm jë yem boo tegee fii sa loxo xam nga ne sa jëbi yeg yegsiwul foofu fii la sa jëbi yem yemaleel fii sa jëbi nga raxas mu wàcc baagsi ci nopp yi fii bul dugal nopp yi waaye na ak